Mm, hépatite feebar la boo xam ne feebar bu metti la waaye tamit feebar bu jafee faj la ki nga xam ne nag yàlla dafa dogal mu am hépatite li gën ci moom mooy ne naan ndox mu bari te tamit nay lekk fruit waaye na moytu lu lépp loo xam ne lu gras la warta lekk yàpp bu yàpp bu am graisse warta lekk gerte ndax gerte dafa niin warta lekk mayonnaise ndax mayonnaise dafa niin warta ko omelette ndax omelette dafa niin warta mar ndox ba yaramam di ko laaj ndox ki gën a gaaw a wér ci man hépatite mooy ki nga xam ne hépatite gam chronique gul laa boo dikkee suñ defee traitement bi pendant trois mois nga teqali ko ak hépatite su nekkee chronique nag kooku ça doit être euh, ça doit prendre beaucoup de temps waaye nag góorlu pour def traitement bi moo gën ci moom médecine traditionnelle ñoom la yàlla mayeegum solution ci traitement hépatite nit ki mën na am hépatite te du ko du xam ne am na hépatite waaye bés boo demee ba yow si jëm bopp nga découvrir sa bopp na am nga hépatite rek mooy wane ne gaañ na la ndax su demee ba attaqué fois bi mën na la indi cancer sa côté fois te loolu baaxul. doo xam mukk méttiwaay bi lu dul nga gis ki ku hépatite dal ndax non seulement dalay yóbbu sa xel doo dootoo amate stabilité sa dund dootuloo livre sa xalaat. te nekk na feebar bu métti te bul ñàkk espoir bul ñàkk yaakaar ndax wér mën naa am nit ki am hépatite su toppee conseil yi nga xam ne moom lañ ko jox mu respecté ko incha allah day teqali ko ak hépatite am